dalena jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyantoo yéenekaay gi réew mi ko di jeex yi nga xam ne wàññi nañ ko ci lu yoo xam ne dañoo lànk kandaare bañ ko nga xam ne moom lañ dénk wàllum jënd mi ak njaay mi ak commerçant yi ni ki démb amal nañu ko duñu nangu benn yoon ko ko yokk te képp koo xam ne yokk nga ko ay daan mën naa lalu si sa ndodo mën nañoo dem sax ba teg la loxo mën la mën nañu la jébbal procureur procureur nañu laa jël sax dugal ci kaso bi yéen a kaay gi di 24 heures nee na de sala li nga xam ne moo yokk ci réew nar naa bari ndax guerre bi nga xam ne moo am ca diwaanu Russie ndax nag waa Russie ñoom ñoo ngi dànkaafoo nee nañu lu jëm ci wàllu mbele bi mën naa yokk lu jëm ci wàllum courant bi sax mën naa yokk lu jëm ci wàllum carburant bi maanaam loolee tamit mën naa yokk yéen a kaay gi de la tubira ñu koy fekk fa waa Russie waa Russie ñoom nag seen ambassadeur bi rafetlu na bu baax a baax maanaam Sénégal gi nga xam ne maanu na ci guerre bi Sénégal gi maanu ci guerre bi loole nag waa Russie ñoom rafetlu nañ ko bu baax a baax yéen a kaay gi de enquête xëy di ñu xibaar naan ñu nag lu jëm ci wàllum wàññi njëg yi état bu Sénégal dina nag fas yéene suspendre li nga xam ne mooy taxi yi yéen a kaay gi de la quotidien wax ci lu jëm ci wàllu wér gi yaram gi ñi nga xam ne ñooy acteuru santé yi ñoom nag la ñuy sàkko maanaam yeneen traitement traitement maanaam seen situation seen nekki na ñu daal koy xoolaat ñi nga xam ne ñooy waa SAEMS e jàngalekat yi ñoom tamit ab statut e spécial la ñuy sàkko yéen a kaay gi di Vox Populi ñu koy fekk fa Bara Gaye mi nga xam ne mooy directeur général bu service national de l'éducation et de l'information pour la santé di SNEIPS e moom nag jamono ji li muy wax mooy lu jëm ci wàllum coronavirus bi nee na bi jeexagul ci réew mi te askan nañu jël seen matukaay ji a kaay gi di ñoo xam ne amee nañu jàngoroy roño ñoo xam ne ñoo ngi xaar ngir nag ñu defal leen jalis maanaam xaar bu yàgg bi nga xam ne ñi amee insuffisance rénale ñoo koy xaar xaar boobee rek am nañu bare bari ñoo si ñàkk seen bakkan at mu jot lu toll si ñaari téeméer ñoo amee jàngoroy roño danañu faatooyal yéen kaay gi du sursa nee na lu toll si juróom ñetti téeméer ak juróom fukki junni ci ay nit ñoo xam ne amee nañu feebar bii di roño ci biir réew mi ay njombe ak i giraawaale bëri nañ lool ci réew mi ndax imaam Lamine Sall fan yii nga xam ne moom la ñu génn wax na fi ak tooxi doona koo xam ne doy na a yàq musiba ak mbelengaana ñi nga xam ne ñooy catholique yi ñu ne déete waaye Pape Amadou Sarr mi jiite woon dara moom ti ŋàññi lislaam ba xolam sedd yéen kaay gi ne na ay at ci ginnaaw tamit professeur Songe waxoon na fi ak giraawaale ndax dafa waxoon ne jigéen ñekk ni nga xam ne moom la ñuy sexy maanaam lu gàtt sol loolee dafay provoquer viol yéen kaay gi ne li amba wax mooy bala ngaa wax nga xalaat baax a baax journal bi de la témoin ñëw na personnalité yi nga xam ne maanaam nag seen wax ju rëy wala seen wax ju ëpp moo tax ñu daal koy dàq ci parti bii de APR Ousmane Sonko wax ju bari moo taxoon tamit ñu dàq ko impôt domaine ga mu nekkoon yéene gi nee wax ju bari moo tax colonel Abdou Aziz Ndaw moom tamit ñu dàqoon ko ci gendarmerie teg ko ay daana capitaine Mamadou Dieye moom tamit wax ju bari moo taxoon ñu daal di koy dàq Abdoulaye Ndour dage moom tamit ay wax moo taxoon ñu dàq ko ba si Sori tax ñu dàq ko APR ak capitaine Omar mi nekkoon gendarmerie section de recherche moom tim ay waxam moo taxoon ñu dàq ko yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu lu jëm nag ci mbirum Boffa Bayotte maanaam nag juróom benn fan ci weeru janvier atum ñi nga xam ne ñoom lañ rayoon ci àllub Casamance bi ñi ñu jàpp ne seen loxo laale nañ si danañu leen àtte ñaar fukki fan ak ci weeru mars wi ñu dëg ma la yéen a kaay Vox Populi vingt cinq mars la El Hadji Ousseynou Diouf nee na match la boo xam ne du yomb ci Sénégal